dégloo ti leen tey ma wax waxal dégloo ti leen tey ma wax waxal tey ma wax waxal tey ma wax waxal sa wax wax dina lay leer jàll wax ñoo bokk benn mbax e kañ du wax lu mu joxee sigaret day sañ lii bàcc soo bàcc soo ba tey sax ko jaay lu muy yaay yow xanaa fugul yaay yow yaay xoolal ni wër la kan wër gees wër li mu juróom ñaar Thank you. ajjana yaa ngi nelaw de. doxee nga naaj bi. naaj bi daa tàng ni jaay. tàng na trop waay. doo ma woo téléphone rek ngay doxee naaj bi. waaw sama nooy dag may bool. xam nga yow. dëgg laa wax de. naaj bi da lay lakk de. waaw waaw. dox ci naaj bi de wóor. mën na ko nooy def boo dajalee xaalisu jàmbur ak commerce bii. pour ñu jël sa boobu rek fay la ko ci saa si mënta nekk di nga doxoo doxoo dox ba sonn. ah, ah te natt tamit nga jël ko dajale xaalisu jàmbur il faut nga topp nit ñi ñu mën a natt. dëgg la da ngaa jub rek. waaye ah. ah, ku sonn nga jariñ. amiin amiin te sa natt bii. Mm-hmm. damay fajee sama sama sama benn jigéen. Mm-hmm. Fanta Mbour. ah Fanta nga ko xam naa Fanta Mbour bu baax da nga koy subi xale bu bëgg lu baax ci réew mi. dëgg la xamante nga ak moom daa jub. am na fula ki nattam am na fayda respecté na doomu aadama yi. du la du la torturé du la taxaw. dëgg la te liggéey loo ci xamul moom day def ay natt oto. wax na ko la ko wax. man ma gis ko ci TikTok bi. daa bëgg lu oto lay def. nijaay nag natt oto boobu laa bëgg nga bokkal ma. pourtant moo nekk sama xel mi yëpp pël yëpp. moo nekk sama xel mi man ndax maa maa ngi naan damaa bëgg seet sa la mu ne ma ñëwal sama kër. maa bëgg su ma demee ni ko damaa bëgg mu bokkal ak natt bi boo tekkee am sa oto. waaw nijaay xoolal oto bu rouge laa bëgg. oto bu rouge. da xam couleur rek. sama jabar ji tëj oto bu rouge rek. billaay yow ya, nga toog sama wet rek ma naan nii. ngay jël kay dafa mën a. doo toog ko defal nga takk say noir fii rek. jum dam yàlla boo sa sa bu balaa. teg ko ay jokkoo ma rek. loolu gën xool man teg la sama man naay dawal di la xool rek su ma nee fii gëstu gis la rek. waaw ay waaw ay loolu ay loolu. ah da ngay rêvé ni man man dem naa dugg laa bu yàgg maa ngi oto bi. yow daal fànk mu waxal ma ko lii. bu dee dara mu ma jane léegi laa xëy sa sa sa. dégg naa nag loolu la gaawee. gaaw xale yi ci bopp yi am nañu ko. amee màggal boo dem màggal gii di ñëw oto nga yóbbu ay na jàpp yàlla dégg ah, waaye loolu kay loolu kay dem bi la fanaan rek seen màggal ci oto nga yóbbu suñu facture bi dama saa teel a dugal sama sal bi totalisé naa la ko ba pare nag ndox meeg courant bi yëpp mi ngi nekk cinquante trois mille quatre cent nga ne cinquante trois mille quatre cent loolu cinquante trois mille quatre cent cinquante trois mille quatre cent loolu xanaa ay njëy la waaw sama njaay la ko dal dara dal ma dama xamul li ngay wax cinquante trois mille quatre cent wax ko ci olof xam nga ne man dégguma olofu xaalis dama ne la cinquante mille. waaw mooy fukki junni. fukki junni. fukki junni cinquante ak trois mille. trois mille ak quatre cent. eh waay. loolu la. mais da koy joxe dépense xew. waaw. cinquante trois mille quatre cent ndoxu courant. waaw. waaye ku koos loolu. Ndiaye ku dul koos loolu da nga fàttali kër gi léegi o yóbbu. benn nit. waaw mais ndoxu courant par deux mois la tamit de. agratiement. Aja àjjana hati ma. waaw nijaay waaye da ma. Yo aja lah, ma sa gisee këru ñett man sama doom sama jabar sama xarit bu ñëw te yàgg fa mu nekk cinquante trois mille quatre cent. waaw nijaay man ndoxu courant nu ma koy def. da koo naan man man naan ndox ba cinquante trois mille quatre cent. yaa ko am xuma waa àjjana xam nga laa nga xam gis nga gis nga jigéen ji baax day yaxanal poos ci këram. waaw day yaxanal da man fekk yow yow koo xamante ne si bu dee xëy soo ba ngoon jot di jaay pikini xëy war a fay courant cinquante trois mille quatre cent léegi loolu mooy sa àdduna avorté na. waaye yow ba mooy mais nag sama jàpp waaye ah, àjjana. waaw léegi man ku bëgg sama digganteeg yow. léegi yow léegi yow léegi yow da ngaa bëgg a bokk ci sama tënk dooy bokk ci sama tënk. waaw xam nga ma si man. bu yeboo nga génne sa xel jàpp bi de. ay waay. loolu génne sa xel doo toog ci volant doo takki verre doo sol yére bu weex doo lu vu màggal Tuubaa gi njaga jaay ngay jël du ma ko bàyyi ci. mu ngi doon ma tus mu ngi doon ma dara mu ngi doon ma dara ndox mi da ngay jël ndox mi di ko maye di jaay yaa baax ndox mi ndox mee saala jaaral ni jaaral ni jaaral nga jaaral bu ma jënki man bu ma jënki di jël ndox mi di maye ku ne ku ne dama dama bëgg a sarax sarax saraxe saalal man bañ a man man xoolal gis ci benn bi ay topp di la wax di la wax wala di la ma wax di la ma wax boo ko jaral du baax boo ko jaral du baax waaw. facteur courant bi ak ndox mi moo ñëw. ah di ah yàlla na yàlla may wërsëg boo ko fay. yàlla nañu yàlla may yàlla nañu yàlla da am néeg am nga am nga ventilo da ngay sangu da ngay kakaar. dégg nga ma déglu déglu ma déglu léegi nag xam nga ma bëgg. mooy ñëpp koy def moom ñëppay kakaar. gisoo ci kër gi. faloo ma ci xeexu ma ci faloo ma bëgg. cotiser dara nag loo am rek jox ma ndax facture mi ci fukki junni yu teg cotiser. waaw man crucial man Ndiaye su ma xam-xam ma ci ci ci ci ci ma yab de. barki yàlla man Ndiaye nit du ma yab jaafara am. fii fu ma de bu ma nga jox ma sa cotisation ci facture courant. waaw xanaa ku ne li nga yor loolu ngay joxe. yow xanaa sa fan yi ngay ngay na ëpp ma ne téeméer laa yor moom laa mën a joxe. doo joxe téeméer tere na la ñaaw ba faaw tey laa tey na tey laa nar a ñaaw ak yow ba faaw mënoo dëkk ci kër gi fooyoo courant fooyoo ndox joxewoo dépense jeunesse màcc loolu mënatuma ko maa doon joxe mënatumaa joxe xoolal fa tamit sa noppi jo gën a gën a xam. Ndiaye Ndiaye gënoo maa réew de ba mu ko ma xaatee ba mu man nga gën a gën a léegi nag sa réew li xoolal man boo tawee boo tawee di nga ñëw ñaare am cotiser ci facture bi mbaa dootoo dugg ci douche bi dootoo sangu sa néeg boobu vingt loolu dama koy wekk te sax yow nag sax saa yow cotiser cotiser cotiser. waxoon dëgg yàlla loolu faa yem. da ngay cotiser wala cotiser woo. téeméer laa la mën a jox jox naa la. joxe woo joxe woo yow li lay li lay génnee kër gi mi ngi ñëw. li ma fi dugal génne wu ma fi mënoo ma fay génne. jërëjëf. jaay lu muy jaay yow xanaa bëgg jaay yow jaay xoolal ni wër la gan wër gees wër leen juróom ñaar